ku doon laajte faali ngoy yegsi na projet baa ngi nii mooy li ñu mën a jàngee ci xët mu njëkk la quotidien journal bi dañuy wax ne Diomaye ak Sonko wane nañu démb yoon wi ñu bëgg a xàll ngir jaarale fa réewum Sénégal mu di seen nouveau référentiel de développement vision Sénégal 2050 ko tuddee bés bi le jour bind na samp na guy Sud Quotidien nañu Sénégal mi ngi ci keppaaru guy bi Soleil national tuddee ko ñag bi wër Sénégal ëllëg lise ko ko séntu gi ñu baaxi mbuut mu di secret yi nekk ci projet ba mi ngi ñuy wax appel bi président de la république def démb ba muy lancé Sénégal vision 2050 ak grâce mu di muñ ak dal gi premier ministre Ousmane Sonko sàkku ci askanu Sénégal mu di loolu l'observateur mi ngi ñuy wax ne am na syndicaliste yu ne duñ ko dégg xalaatuñ fee toog di muñal kenn baa ñuy muñ lenn journal L'As di ñu xamale ak Victor Ndiaye di waa tëgg projet bi muul ko ba mu jekk projet bi da ci ànd ki nit ñu ci mel ne kii di mu di ko ci la tribune fii lu ne mooy projet bi ñu ko def defuñu e bu Macky Sall bi e e ne tuskare ñeel na Sénégal ndax dañoo jël réew mi teg ko ci loxoy ñoo xam ne xamuñu munuñu ay cuune ki xusma ñàpp Bougane Gueye Dany ne nee moom la dénk Sénégal mu ne vision politique ngir réew mu mag mu toll ne Sénégal du vision boo xam ne da ngay dem di ko jënd ci ay cabinet consultance may sa baabu dib économiste mi ngi wax ci xët mu njëkk luy quotidien tëgg projet bi ñu wane démb ci PSE di plan Sénégal émergent ci la sukkandiku sursoi bi ne ne jomaay rëdd na li mu bëgg ci réew mi buggaan gee daan faase lépp Thierno Alassane Sall borom république des valeurs ni ñu ci ñu ci le gu gën a mit le public nañu projet bi waa axlu projet indi ci réew mi te kenn du ko lam-lame ku lamb daj ko xool gis weesuwul ay sortie incendiaire ay attaque inutile burdu yu dul jeex ak arrogance gu dul jeex ak arrestation yu bari ñooy ñoo xam ne heure bu ñu génnee di wax rek nit ñi jàpp seen gémmiñ duñu wax mukk lu am njariñ dëkkee toj toj ci kaw toj toj ba noppi nag jël justice bi def ko yoonu toll ku leen neex ñu jàpp ku leen ñeex ñu ba fekk li ñu koy tuumal mën a leer libération nañu ñaar fukki million ak juróom-ñett la jéggi joxe ñu bàyyi ko mu dem placé ko contrôle judiciaire en attendant nag yoon di ko setal ba muy dëgg li ñu koy tuumaal jéggi Jóob xëy di nettali wàllu observateur ni mu dundee ak nekkam ci loxo yoon jéggi nee na dund na ca kaabu tribunal ba loo xam ne yéenewu ko sax noonam bi gën a mag nee ne dina xeex lu mu mën ngir dëgg ji feeñ dëgg ji feeñ démb ci tribunalum Dakar l'observateur mi ngi ñoo xam ne ñu ko dégg ñëpp a yéemu ubbi yéenekaay bi benn ingénieur en génie civil lañ fa doon atte liñ ko doon toppee mooy moom ingénieur en génie civil bi dafay wër ci école yi di seet xale bu jigéen bu mu mën a saay-saay benn étudiant bu jigéen bu dëkk benn nett leen démb ca tribunal ba li ko waa ji def ak ni mu ko ko defee journalisé ko nañu waa ji di kaa di ingénieur génie civil vrai génie la ne buntu école ISM la doon taxawàllu gis benn xale bu jigéen invité